Salam alaikum mbokk yeeg xarit yi ñu seetaan seen chaîne bi di Feeling Dakar TV ak seen site bi Dakar donc euh, tey maa ngi leen di nuyu di leen euh, jaajëfal fii ci seen euh, site internet préféré balaa balaa dara dama leen di souhaiter tamit une bonne et heureuse année 2019 bu 2019 naa ñaaw yàlla na mel defal leen jàmm ak salaam surtout aussi santé. bonheur réussite donc euh, tey nag dinañ ànd ak seen xarit bii di Kumba donc euh, tey nag ñu ngi ànd ak euh, benn invité boo xam ne kenn dootu ko présenté invité boo xamante ne que il est reconnu mondialement en Afrique en Europe donc je suis aujourd'hui avec le manager général du site internet Feeling Dakar TV donc Bamba maa ngi lay Coumba maa ngi lay fay. lay bàyyi nga nuyoog mbokku internet yi. merci beaucoup mais présentation bi réer na <laughs> ah <laughs> ah, ma koy waxee dañ koy taalibement tout le temps rek ah. Mm. donc voilà merci beaucoup en tout cas ma lay dalal ak jàmm aussi. merci di la di la souhaiter la bienvenue dans le groupe Feeling Dakar euh, point ak Feeling Dakar TV. bienvenue parmi nous. Ah. ma lay souhaiter aussi mes meilleurs vœux de bonnes années. 2019. merci beaucoup. et je profite de l'occasion di nuyu bokk internet yëpp yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ah, ci Feeling Dakar point com ak filing Dakar TV et di leen remercier parce que grâce à ñoom tey tax nañu ba ñu bokk ci site ñu gën a xool Sénégal Sénégal tey vraiment am dooleel nañu et loolu c'est grâce aux internautes parce que bu dul ñoom duñu dara. ndaxte ñoom ñuy xool site bi ñoom ñuy xool chaîne bi ñoom ñoo tax ñu am doole ñoom ñoo tax ñuy yokk liggéey bi ñoom ñoo tax vraiment ñuy ñuy gën a am mm, pas-pas di di di yokk liggéey bi di jéem a dem de l'avant donc je vous remercie di leen wax ne tey eh, Feeling Dakar grâce à vous mi ngi avancé bu baax a baax a baax et merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années mm. ah 2019 bu naree naqari wala mu ñaaw yàlla na dàq 2018 ah en tout cas mais meilleurs vœux di leen ñaanal beaucoup de bonheur beaucoup de prospérité beaucoup d' argent ñi ko soxla xaalis ñëpp ko soxla mais nag li si jiitu mooy santé donc wér gu yaram à tout le monde beaucoup de santé santé bu bu bu bu wéy quoi. Mm. ñi tëdd ci hôpitaux yi ñu am jàngoro yàlla na ko yàlla saafaraal. Mm. yàlla ñu yàlla defal jàmm ñun ñëpp may ñu santé ak sago ba ñu mën a yeggali li nga xam ne yëpp ñu ngi koy mbébét. Donc, euh, bonne année à toi aussi. Merci. Je te souhaite euh, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Donc, euh, aujourd'hui, on va faire un bilan ouais. de l'année 2018. D'accord. Les 2018, l'année donc euh, objectif yi nga atteindre les projets yi nga xamante ni que ce serait ce serait négatif pour euh, toi. Mhm. yi nga xamante ni que atteindre nga ko yi nga xamante ni que tamit atteindre ko. ci 2018 mhm. bi ak euh, projet yi nga nar a def ci 2019 bi. Mhm. incha allah. ah merci beaucoup Coumba merci l' année 2018 comme ni ma ko waxee sànq sama commencement wax. nekk na une année très mouvementée. année bu bu bu bu doy waar moo nekkoon 2018 bi bu métti woon nag ah ci côté yëpp mais si suñu côté aussi ci sit bi ak chaîne bi alhamdulilah comme ni ma ko waxee toutaleur tey ku xool Feeling Dakar di nga gis ne liggéey na lu bare bari ci 2018 bi ah liggéey na lu bare bari ci ci ci ci ci côté culture bi boo xoolee ndaxte dëkk bi ñu nekk tey di France Paris dafa nekk benn centre de l'Europe comme ni ma koy woowee donc boo xoolee tey euh, Paris euh, pour nga am reflet ci ci musique sénégalaise sax laa la bëgg a wax mun nga ko xool fii ci Paris c'est-à-dire que fii ni affaire di doxee ak ni muy tourné woo tourné daf lay daf lay daf lay jox daf lay tax nga mën a def bilan ndax affaire di dox na ou pas te boo xoolee 2018 euh, dafa serré woon ko ay a eu beaucoup de trucs beaucoup d'événements ah yu mag nag yoo xam ne xew na fi xew na mm. fi en France donc euh, sunu mbokk artistes yi ñu ñu ñu ñu ñu def ñu am fi artistes yu bëri yoo xam ne def nañ fi production yu mag fii mm. ah et que loolu tey daf ñu mën a permettre ñu def bilan mm. dafa métti woon dafa serré woon après boo génnee Paris nga wax Europe bi en général aussi ils ont beaucoup tourné y a beaucoup d' artistes mais ñun boo xoolee liggéey nañ lu pratiquement ci événement yooyu yëpp quoi boo xoolee Bring Dakar a toujours été au au de ces événements. Mm-hmm. et avant après et pendant aussi. Mm-hmm. donc tey mën nañ ci wax mën nañ ci def benn euh, bilan. Mm-hmm. mais malheureusement aussi ñu ma koy waxee rek. y a eu beaucoup de musique sénégalaise aussi man pour man euh, euh, dama koy wax tout le temps ñenn ñi di ko nangu ñenn ñi di ko bañ mooy que musique bi dafa am benn bes dafa am problème. li tax ma dafa am problème mooy. la musique tourne autour juste de deux trois quatre artistes mais malheureusement c'est ce qui est pas normal mm-hmm. c'est ce qui fait que l'industrie musicale au Sénégal aujourd'hui dafa am problème mm-hmm. dafa am problème parce que tey boo jëlee dëkk yu bari nga xool li tax ñuy jëm kanam ci côté musique mooy que ça tourne mm-hmm. du benn artiste wala ñaar rek ay ñam quoi mais da nga gis ne ku ci nekk côté bi nga nekk rek da ngay tourner te musique musique bu njëkk c'était comme ça da nga gis ne Youssou Ndour mi ngi tourné fii di am li muy am Omar Pène di tourné di am li muy am Thione Seck ñeneen ñi ci topp nga gis Alioune Mbaye nekk un artiste qui tourne presque semaine bi da doon joué chaque jour ba mu des sax benn jour rek lay noppalu. Mm-hmm. nga gis Abdou Guité de son côté nga koy dégg muy muy tourné Assane Ndiaye. Mm-hmm. Pape Diouf keneen ak keneen. mais Fallou Dieng malheureusement on a plus ça. donc tey si on faisait un bilan mën nañu wax ci lu bare bare bare bare. Mm-hmm. parce que fii musique tollu woon léegi tollootu fa. Mhm. mais euh, question bi ma leen mujj posé mooy euh, projet à venir yi ci 2019. Mhm. donc euh, yaa xam li nga bëgg a attendre ci 2019 li nga xamante ni que attendre ko woon ci 2018 bi. Mhm. peut-être donc. donc bëggoon rek nga leeralal ñu bu baax projet 2019 yi nga. prévoir incha allah waaw mais projet de 2019 c'est. li ñu bëgg rek mooy tey bu ñu amee 60 pour cent ci suñu liggéey. pour pour ne pas exagérer bu ñu amee 60 pour cent ci suñu liggéey en tant que site bi ñu yor ak chaîne TV bi ñu yor di ko tourneel ak suñu li ñuy représenté aussi ci culture bi. Mm-hmm. dañuy bëgg deux 2019 ñu yokkat ci lu mu dee dee benn 20 pour cent bu ñu mënul amaat car bu ñu mënul am 40 pour cent yi. Mm-hmm. donc on va essayer de d' avoir les 20 pour cent de plus sur les 60 pour cent qu' on loolu moo nekk suñu objectif c'est-à-dire tey bëgg nañu Feeling Dakar boo jëlee classement nga ne ñi ngi woon ci dix premier sites yi wala wala cinq yi yaa xam. Mm. bëgg nañu bokk ci classement un deux trois yi. Mm-hmm. yàlla mën na ko liggéey rek moo am solo. boo liggéeyee donc dara jomb la. Mm-hmm. donc on va on va faire partie de ce de ce classement là. Mm-hmm. incha allah te ñi ngi ci yoon bi ñu ngi koy liggéey. ñu ngi koy liggéey et bëgg nañu aussi chaîne bi nga xam ne c'est une chaîne YouTube mu ñu fexe ba 2019 su ma nee nekk ñu def ko une chaîne télé bi télé. incha une chaîne télé bon après ça dépend ci fan la ñuy dugg. donc ñu ngi koy liggéey nag. Mm-hmm. ñu ngi koy liggéey et incha allahu rabi tam bëgg nañu yàlla def ci def ci xéwal. Mm. Et je profite de l'occasion pour lancer que on a aussi lancé notre site internet boo xam ne pour le moment ça parle de politique muy Paris Dakar 24 heures. Mm-hmm. mi ngi àndi nekk benn vitrine pour le Sénégal boo xam ne ñi nekk diaspora ci diaspora bi ci côté mode surtout c'est-à-dire mm-hmm. di ci liggéey avec les tailleurs du Sénégal nga xam ne ñi nekk fii ci ci ci Europe bi dinañu mm-hmm. mën a dugg foofu xool li ñu soxla xale yu jigéen yi xale yu góor yi li ñu soxla comme modèle. ñu def commande bi directement par dans le site. et je salue nag sama benn frère Babacar Diaspora. Mm. c'est un frère boo xam ne bi ñuy taxawal Paris Dakar aussi liggéey naa ci ak moom lu bari. Mm. tur bi sax mën naa ne ci moom lu jugee c'est c'est quelqu'un que que que je respecte de par sa volonté de par son idée. Mm. donc du ma wax Paris Dakar tam te tudduma ko. bokk na ci liggéey naa ci ak moom ci ci ci côté conceptualisation de boobu noonu début bi et donc voilà donc loolu bokk na suñu ay projet nag ci 2019 bi vraiment duñ ko taxawalee tey boo xoolee eh, am na doole sax mais dañ ci liggéey guñ ci carrément donc bokk na ci suñuy projet yu ñu war a liggéey mm-hmm. donc voilà donc comme ma ko waxee nag projet yi bari nañ mm-hmm. objectif yi ñu war a atteindre daal mooy bu ñu bokkee ci dix premiers yi ñu bokk ci trois premiers yi waxuma mm-hmm. cinq yi mais trois yi bon tout cas euh, Bamba ñu ngi lay jaajëfal C'était juste pour avoir une synthèse de l'année et les projets de l'année 2019. donc euh, Bamba ñu ngi lay nga tàggatoo ak euh, mbokku internet yi. merci beaucoup Kouma et encore une fois soyez la bienvenue dans le groupe et di di remercier ñëpp ñi nga xam ne vraiment accompagné nañu durant toute l' année 2018. ñi nga xam ne tamit jotuñu woon jotuñu woon euh, xam seen portail. seen chaîne ñu ngi leen wax la bien les bienvenus mm-hmm. di remercier ñëpp ni leen ko waxee tout bi rek encore une fois bonne et heureuse année yàlla 2019 bi nekk une année très fructueuse mm-hmm. ah ak beaucoup de santé di ko mm-hmm. ñaanal Sénégal ak àdduna bi yëpp yàlla na musique sénégalaise nag euh, coono yi muy traversé yëpp yàlla na ko yàlla na jeex yàlla na ko dépassé ba tey mu nekk ci mu bokk ci parmi les pays yi nekk au top yi nekk ci classement mondial yi nekk ci kaw kaw musique sénégalaise yegg fa donc loolu la ñuy ñaanal àdduna Sénégal di ñaanal jàmm Sénégal di ñaanal ñi nekk bitim réew tam jàmm jërëjëf ñu ngi jaajëfal ñëpp merci beaucoup. merci beaucoup Bamba en tout cas c'est un plaisir de t'avoir maa ngi lay remercier ci accueil bi maa ngi remercier bu baax tamit. Euh, Babs Diaspora bu baax keek xarit yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen wax ngeen connecté restez connecté aussi sur votre site internet Feeling Dakar TV et sur le chaîne YouTube Feeling Dakar donc euh, merci beaucoup. del déglu del xool Dakar site bi Dakar